jàngalekat yi bu ñu leeralul nekk ci kanam di gindi askan wi leen wax ne lii moo baax lii moo baaxul def leen lii bu leen def lii mais kon kan moo ko war a def je donne un exemple c'est pas pour parler de ma personne mais quand l'affaire Adji Sarr a eu lieu au Sénégal nga xam ni peut-être ñu bëri dañ jàpp ne loolu moom ma révélé c'est vrai que ñu bëri ci lañ ma commencé woon suivre mais man j'ai porté des combats avant ça j'ai porté beaucoup de combats avant cette et lui il lançait quelque donc moom euh, Moustapha parce que je le cite parce que moom on a cheminé euh, ensemble et le ce que je rappelle souvent mooy le jour où on a raje le président Ousmane si je me rappelle bien c'est euh, en août en août 2016 je crois c'est le 29 août. 29 août 29 août 2016 ñu radié le président Ousmane Sonko jaay ko doole au niveau de la fonction publique mosuñu radié noonu ab agent de l'État parce que bu ñu la radié au nom du principe. de de de de du débat contradictoire dañ ko war a entendre lui et ses avocats dañ ko war a entendre avec celui qui est du même grade que lui dans la fonction publique ce qu'on appelle la commission de discipline ñu dem tege ne ko commission de discipline parce que xam nañ suñ ko entendre duñ ko mun dàq parce que amul benn élément bu ñu mën teg ci loxo loxo commission pour mën ko pour mën ko dàq ñu ñëw mu andi ay avocat am ñu ni du ñu dugg jaay ko doole dem defar seenu euh, décret de radiation dem radier pour un fonctionnaire de la hiérarchie boo xam defu leen dara mais yàlla yàlla rek a yàlla ku doon ab salaire am salaire peut-être euh, boo xam ni euh, xëy naa nit ñi ñu ngi doon wax ni bu bëree bu bëri un million la neuf cent mille ñu jaay la doole dàq la Sénégalais yi def la député député lu mu dee dee xanaa am nañ deux millions salaire Sénégalais yi teg la ci xolu ñëpp parce que bala ñu wax waxu salaire li ëpp solo mooy nga ne cim réew li ëpp ci réew mi bëgg la nga ne cim réew ñu ëpp ci réew mi bëgg la loolu moo ëpp salaire kon ñu jaay la doole ñu jaay la doole radier la ci loo xam ne defoo leen dara ñëpp xam ne dañ la jaay doole radier la jour boobu bi mu amee le 29 août parce que man comme ni nga ko waxee man les combats yi ma mën a yëpp dugaluma ci sama bopp man sama jëmm ji taxumaa dugg ci benn combat calculé wu ma dara jour boobu c'est vrai que El Malick Ndiaye moo ma woo à l'époque ne ma dañuy def conférence de presse à l'hôtel Feto mooy hôtel bi nekk ci route aéroport ma ne ko Ousmane El dinaa ñëw moom mi jeune ne pense pas am na ko ko fa woo moo ñëwal boppam ci li ma jàpp ma moom Moustapha Faye mii ñoo fa nekk ndowoon ci conférence de presse bi nu def à l'hôtel Feto bi ñu yegsee ma jël la un journal de Sud FM ni ma Dame Mbodj lan ngay wut fii ma ne ko Dame li ko fi indi mooy man bokkuma Pastef mais damaa ñëw pour dëgg parce que du ma fekkee sama moroomu euh, sénégalais ñu koy jaay doole mu nekk ci biir fonction publique ma nekk syndicaliste même su ma nekkul woon syndicaliste ma nekk sénégalais tout court ma gis ni ñu ngi koy jaay doole may seetaan lii rek moom fi andi pour wax ni jaay doole bii ma gis Sénégal bu dakkul musiba dina am ci réew keroog déclaration boobu laa def ma ñëw ñu sagale ma ni ma kaay toog ci présidium bi parce que yow syndicaliste nga ma ñëw fekke ko ñu def une conférence de presse boo xam ni le président Ousmane Sonko n'était pas là-bas mais le syndicat donc euh, des de des impôts domaines ñoom ñoo ko organisé woon moom sa famille ma nga fa woon ci conférence de presse bi je crois que sax tout est de là-bas tout est de là-bas parce que après ci laa ko gis mu jiite donc euh, euh, euh, le mouvement des enseignants patriotes le MONEP ma jàpp ni kon xëy na foofa ca la relation yi gën a duggee ba ñu ba mu mun a àgg ak ñoom foofu kon pour woon nit da ngay am taxawaay man mosuma gis benn xeex boo xam ne gëm naa ne lii baaxul sama réew may taxaw di seetaan c'est vrai que nag aujourd'hui comme on dit boo waxee ñu daan la yow da ngaa féete mais man c'est normal parce que bu ñu la nee yow ki la kii ruube ni la yow lu ci ëpp dañ lay gis ne ci euh, ci problème Ousmane Sonko nga ëpp looy wax mais c'est normal parce que ni ñu ko singalee wu wuñ ko kenn c'est ça aussi la vérité xam nga Sénégal boo fa waxee dëgg rek ñu dem jaxase parce que lii problème bi mooy mais mais man nan laay waxee ci ko mais man bu doon bu doon dañoo singale sama jabar ma dem jàppale mais kenn singale wu ko mais loolu parce que même sama jabar su ma bëggee tooñeen saa dinaa ma mbuuj nag yow assumel rek yow passef nga mais mais ça c'est pour ma pour ma pour ma chambre quoi ma ne ko il faut arrêter toi aussi ma ne ko yow mii bu la Macky Sall singali woon ma nekk sa wet mais yow kenn kenn singaloo kenn xamu la loolu mooy problème bi ma ne ko man maa dem di jàppale ko xam kenn xamu ko kenn jàpp kenn créé lu ko parce que le pouvoir en place dofuñu ils ont des sondages les sondages sont gis nag un patriote doo di layam-layame comme ni ma koy waxee patriote mooy ku bëgg sa réew bëgg sa réew mooy bëgg dëgg soo gisee dëgg nga taxaw ci dëgg kon man musuma mënu ma gis dëgg ba noppi taxaw nee naa non su ma waxee dëgg dañ naan ma moom laa àndal man 2015 Ousmane Sonko dañu toog man ak moom ak El Malick je l'ai dit loolu ci benn restaurant privé au niveau du point E mu jaarle ko ci El Malick pour ñu toog maak moom ñu toog mu ni ma Dame man li may teg teguma ko pour sama bopp yàlla xam na ko mu ne ma man teguma ko sama bopp parce que bu doon man rek la bu doon sama intérêt bopp kese macha allah mun naa def comme sama morom am avantage ma bëgg am man réew mi moo ma ñor te yow gis naa sa taxawaay ci réew mi maa ngi lay suivre su ma sañoon nga ñëw ñu ànd ci parti bi nga ñëw jël ay responsabilité ci parti bi man ko Ousmane je te remercie man ak moom ak heure yii ñoo ngi ci ñoo ngi ci restaurant bi fa parce que fa lañ jullee timis ma ne ko man mënuma politique parce que posture bi ma nekk je préfère taxaw ci dëgg fu ma gis loo xam du yoon ma ñëw taxaw dénoncé ko fu ma taxaw gis ne lu baax la ma teg sama loxo pour mu dem lu ma gis ne lu bon la ma taxaw xeex pour du jàll lu ma ci man ndam nag ak euh, ñàkk am ndam lool ci loxo yàlla la nekk da ngay mëne ay combat di am ay victoire di mëne ay combat di am ay défaite te loolu mooy àdduna mais lu ma mën mooy li may xeex man na ma wóor ni def ma ko pour samay intérêt personnel léegi nag loolu bi ñu ko defee ca la ma annoncé sax. ne ma man leer na ma ne le livre là que je suis de boucle pétrole et gaz chronique d'une spoliation mun ma réew mi doo nga tax ma koy parce que ñun sunu réew rek la am mun ñu bàyyi sunu réew ñu koy caxat caxatee. corruption bi élevée ñu jël sunu alalu réew mi ñu war a jox sénégalais yi pour ñu jàng loolu patriotisme ban moo gën a rëy ngay xalaat ne man su ma xooloon sama intérêt parce que man j'ai dit et je l'ai assumé que soo amee un leader comme Ousmane Sonko nga xam ne aujourd'hui son premier ennemi c'est pas. c'est pas le pouvoir en place seulement mais mais c'est l'Occident de manière générale mais la France nga xam ñoom ñoo gën a ragal tout simplement parce que li ñu ko ragalee mooy son discours souverainiste parce que néewul moom dafa contre France dani sama bopp ma la gënal du bañ naa la sama bopp ma la gënal du bañ naa la mooy le Sénégal d'abord mais loolu mooy patriotisme le Sénégal d'abord loolu mooy patriotisme patriotisme mooy nga gëm ni yow sa réew da ko war a mettre en avant maintenant ka yor réewam di ko doxal bàyyi ko mu doxal parce que yow tu n'es pas un nationaliste parce que am nationaliste moom bu mënee écraser yeneen réew yi sax écraser leen mais patriotique un patriote mooy koo xam ne moom réewam moo ko ñor day taxaw ci réewam jàppale réewam léegi nag loolu nit ku mel noonu man jàpp naa ne jàpp naa ne wax dëgg yàlla bu ñu mënee taxaw ci réew moom dañuy wax réewum démocratie la si un patriote nga xam ne patriote mooy ku bëgg réewam dem ca kanam mais man su ma bëggee sama réew dem sama kanam mooy te loolu laay wax ci li nga xam mooy taxawaay bi jàngalekat yi euh, war a am mooy l'enseignant à euh, l'épreuve du patriotisme mais mooy yow nga taxaw ci wetu ki nga xam ni li ñuy xaar ci réew pour réew taxaw moom nee na loolu lay taxaw mooy moom dafa gëm ne projet bi mu yore dafa bëgg ñu restaurer l'état de droit ñu restaurer la démocratie restaurer les libertés ref euh, ñu réformer les institutions ba mu am la séparation des pouvoirs ñu am réew moo xam ni corruption dañ ko fay xeex ba mu jóge fa wala bu fa jógewul mu néew parce que réew mu am corruption jafe na mais y un taux de corruption faible dans des pays yoo xam ni dañoo teg ay sàtt yu leer rek moo tax seen corruption jógul te corruption bu élevé day day wàññi développement te su développement bi wàññi ko ñi war a jàngi duñ jàngi parce que alalu réew mi duñ ko ñoŋal parce que dañu jël suñuy ressources di ànd ak ay tubaab di leen ko jox ñuy tibb sunu alal di yóbbu sénégalais bu dee wala mu am cancer wala dara du ko mën a faj parce que hôpitaux yi amuñu un plateau relevé parce que amuñu assez d'argent mais loolu ki nga xam ne moom lay xeex pour loolu am kook c'est un patriote parce que patriote mooy ku bëgg sa réew koo xam da nga bëgg sa réew jëm ca kanam ku bëgg a jàng-jàng ku bëgg a faju faju ku bëgg am liggéey boo bëggee def formation di nga ko def parce que université yi dañ leen di subventionné ba nga am assez de moyens les écoles tamit dañ leen di dooleel ba nga xam dañuy euh, des jeunes dañ koy respecté kooku bu waajalee waa réewam bu ëllëgee réewam ku fa juddoo dina am lu mu suturloo kooku moo mooy ki nga dafa bëgg réewam parce que le patriotisme économique dafa bokk ci li nga xam ne mooy tax réew dem ca kanam te le patriotisme économique bu koy wax mooy nga gëm sa réew gëm li nga xam si moom mooy moom mooy am sa réew comme ni ko Thomas Sankara doon waxee di bay li ngay dunde du dunde li ngay bay kooku bokk na ci mandarga yi ñi nga xam ne bëgg nañoo dem ca kanam te loolu mooy nga dooleel sa réew. tey jii bu fekkente ni da dangay da ngay soxla dara nga gis ni ki koy def ab étranger la moom ab entreprise étrangère la mais am na entreprise sénégalaise moom si mën na ko yow nga dooleel sa sa mbokk sénégalais parce kooku ngay dooleel su ko jëlee alal ji muy jël foofu da koy def da koy envoyé dans son pays mu dem euh, donc nekk benn sorte de devise boo xam ne après une fine yow Sénégal du ci gagné presque dara loolu moo tax la débat sur les ressources nekk un débat sérieux le débat également sur l'implantation des entreprises étrangères Sénégal jël li gën a am solo ci alalam dem dénk ko ay entreprise étrangères loolu bokk na ci li nga xam moo gën a moo gën a néewal doole Sénégal parce que nan ngay comprendre que li ëpp alal ci Sénégal muy la téléphonie parce que képp ku ngeen xool fii mënut a toog 30 minutes te xool téléphone am ñëpp a ngi yore seen téléphone te loolu muy laal ma ngay dégg ma ngay consommé donc ñun ñëpp lu ñu am bokk ko euh, ak ak ak France Télécom ñu jël suñu alal dem jox leen ko ñuy ñuy ñuy ñuy def ay transfert de devise chaque jour. di jël suñu alal di ko yóbbu France France di gën a dem ci kanam ñun ñu gën a dellu ginnaaw alors que pourtant avec le transfert de technologie et surtout que aujourd'hui nos jeunes dañu xarañ suñu xale yi gis nga technologie amul lu leen ci doomu français mën a jàngal actuellement lépp lu France Télécom di def à travers Orange suñuy doomu Sénégal mën nañ ko luy tee ñun ñu demal suñu bopp jël suñu lépp yoral ko suñu bopp jël suñuy doom jox leen yore suñu réew ba dootuñu jëlati deux cent milliards par an di ko yóbbu France kooku man jàpp naa ne quand même loolu patriotisme économique boobu discours bu mel noonu yow enseignant bi nga comprendre ko pour wax yow lan mooy sa responsabilité dans ce qui se nga comprendre cet enjeu yow enseignant bi li nga war a def mooy ñëw bokk ci ñi nga xam ne ñooy am taxawaay pour yaatal sa discours souverainiste parce que yow sa rôle en tant qu'enseignant comme li ma leen waxoon ci enseignant yi am si à l'époque de la clandestinité dañu nangu sax démissionner de leur poste au non du principe patriotique gëm ne ay patriotes lañ que seen réew mi ngi ci jafe-jafe que cette clandestinité bii li ko waral mooy France moo jël une groupe un groupuscule d'intellectuels ay politiciens yoo xam si corrompus à la solde de la France ñoom ñoo fi nekk nekkal fi France ñu ne nii bu ñu leen bàyyee ñu kon ne dañu gën not suñu askan léegi suñu askan woowu nga xam ñun ñooñu ci mën a génnee parce que ñooy voté suñu askan woowu nga xam ne ñoom ñoo mën a am taxawaay léegi ñun comprendre nañ ko en tant qu'intellectuel mais ñoom comprendre duñ ko te su ma nekkee sama classe di jàngale suba ngoon du ma mën te amul ay journaux yu ma mën a jaar amul internet amul dara ñu jël seen responsabilité à l'époque nañ wàcc terrain bi dugg ci kër yi yore sa ku mbagg boo duggee ni damay jaay tusi nga dugg ni ah Senghor day moog France lii leen bëgg a def ci réew mi boo discouré ba ñuy togg añ beeg reer bi comprendre nga dugg ci yeneen kër maa ngi jaay tissu ñëpp dégg na loolu ngay nga dugg ci gi wax mais kooku <laughs> mais kooku kooku c'est un patriote nga xam ni kenn ki ma xam ci ñoom nee na ma daan naa toog dàmbooj lu ma reere du ma ko am te damaa bàyyi sama salaire mais kooku ñëpp nangu ngeen yéen ñëpp ni kooku patriote la mu ne salaire am la renoncer pour wàcc ci terrain bi pour leeral gindi askanam pour ñu am taxawaay pour seen réew kon su ngeen ma laajee lan mooy taxawaayu jàngalekat bi salon votre thème pour que mu taxaw pour bëgg réewam néew ma leen ngeen def sacrifice boobu parce que jamono ji aussi metti na <laughs> néew ma leen ngeen def sacrifice boobu parce que sacrifice boobu aussi c'est pas facile mais taxawaay bi ngeen war a am mooy bu leen kenn filer ay complexe vous êtes les intellectuels du pays vous comprenez les enjeux vous avez toutes les informations parce que jamono ji moom ku nekk mën nga comprendre facilement les choses